évidemment, il n'y a aucune raison de douter de la compétence et des aptitudes de Pape Thiaw parce que dans nos jours de haut niveau la coupe d'Afrique finale, la coupe du monde ak jaloore bi 2002, def 2002 ak général cette génération mm. dorée avons aussi sur le plan académique comme avons la légitimité ci wàllu jaar mm-hmm. au plan académique tamit mais am légitimité diplôme yi ñuy laaj mm-hmm. donc amul raison bu a tax nous koy mm-hmm. wala douter de ces et c'est son amour pour le Sénégal pour avoir déjà porté ce maillot donc man gisuma len lu war a mën a tax yenn débat yi may dégg ma koy dégg suñu bokk la ñu ñoo ñaanoon am joueur local euh, mm-hmm. entraîneur local mm-hmm. ñu am entraîneur local li ñu war a def mooy mobiliser wu ñu defoon ci ginnaaw Aliou Cissé mm-hmm. ñu def ci ginnaawam suñ ko defee je suis persuadé incha allah résultat bi nga xam ne ñu ngi koy wut yàlla mun nañu ko may mais nag dañuy jàpp ne équipe bu ndaw amatul ci àddina mhm. ñëppay liggéey c'est monde c'est village planetaire loolu la ñuy wax parce que moom moment bi yow nga toogee Dakar di seetaan ce qui se fait de mieux à travers le monde mais ki toog Fissel Mbadane wala mu mhm. toog Fongolimbi en temps réel li ngay seetaan mi ngi koy seetaan donc connaissance yi ñëpp ko am léegi bu njëkk la amoon ay cloison doo gaaw gis doo xam mais léegi ñëpp ay xam en surtout que dañuy am léegi ay techniciens vidéo ñu xool bi yaakaar naa métier bi gën ci nekk ci wàllu football ci wàllu sport sax d'une manière générale analyste vidéo dañ lay jàng te gis nga léegi gars yi dañuy def blog ba ñëw taxaw il faut nga am ay am sa vécu am sa xam-xam joueur yi am engagement ak détermination pour xam ne tamit lu entraîneur bi mën a wax a wax lu public bi yuuxu yuuxu ñoom ñooy dugg si terrain bi ñoom ñoo mm-hmm. war a mottali li ci des match bi test la pour moom

def choix assumer ko mais en relation avec le ministère parce que pour rappel c'est l'État du Sénégal à travers le ministère des sports a ñoy fay salaire aux entraîneurs mhm. parce que lolu loi loi mom moko wax non la Sénégal depuis bi nga parce que sport bi c'est un service public mm. état de ko jël dénk que fédération donc mënuñ ci def dara lo xamné déggante wuñu ci surtout en Afrique amul benn fédération boo xam ne nga dem sans sa état amul kenn ku a dem sans gouvernement bi nga xamante ne mooy soutenir ces initiatives di la jàppale accompagner donc kenn amul intérêt euh, rek a yàlla may vraiment ñu tàppe y a eu trop de de de clichés am euh, euh, perception mais je pense que bu ñu ba la réalité sur la table Mais ak ak li une fédération li muy ñaan c'est qu'on état gouvernement pour le compte du football dara le euh, président Augustin Senghor le ministre ah non non absolument au plan personnel il n'y a rien au plan institutionnel yow ki nga la kañ ak euh, erreur te recevoir nako au moins au minimum deux fois bi mu toog ak légui ak waxuma la sax li ñuy déggante ay téléphone légui légui nak dina am ay incompréhension parce que situation nouvelle bu nek mm-hmm. euh amna ño xamantene duñu du ñu buñu jàmm mm-hmm. tay ji dañuy ñëw rek taal affaire bi dem ya naa ne suñ fédération bi ku ci am chance genn en Afrique wala sax genn au delà de l'Afrique dem ci mm-hmm. àddina bi Sénégal dafa nek déjà réew bu ñu respecté réew am image bo xamantene kenn amul droit donc euh, entre la fédération et le ministère des sports il y a une parfaite symbiose